ci mbokki taalibe yi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di leen ndokkeel ci at mu bees mi waaye di leen ziare bu baax a baax ci weer wu tedd wi ñu nekk muy mu muharam mbokk yi ñoo ngi fii ci Touba ci Daarul Xuddoos ci bayti ci kër sëriñ Touba Cheikhul Khadim dañuy daal di ñaanal bu baax a baax Cheikh Mountakha Mbacké mi fi nekk euh, ci bopp njabootuk Serigne Touba mu yàgg fi loolu te wér waaye noonu la ñuy ziare ak a ñaanal sëñ Ahmadou mi nga xam ne ni moo toog jataayub cheikh Mouhamadul Moustapha ak mboolem njabootug cheikh Mouhamadul Moustapha gépp ak mboolem judditi ak taalibe yi mbokk yi xam ngeen ne jataay bu tedd bii ñu koy amale fii ci bayti buñ koy def am na xew-xew bu màgg buy jub si muy ñaar fukki fan ci weeru muharam di bis bi nga xam ne nii ci la Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba tànnoon ñëw dëkkaale ak boromam fii ci Touba waaye xam ngeen ne taarix dootu ko fàtte ndax ay dénkaane yu am solo yoo xam ne nii waxoon na ko Cheikh Mamadou Moustapha mi ko jëkk a njaboot gi mu taxaw ko ba def ca lépp loo xam ne nii Serigne ba noonu la ko bëggee loolu tax na nag xam ngeen ne saa su bis biy jub si commission culturel bi nga xam ne moo aju ci daayira wala mbooloo mi di diwaanul muridina lëkkale mboole munti këri Cheikh Mouhamadoul Moustapha yi di ko laltaaye ak a waajale ay waxtaan yi diine yu am solo xam ngeen ne nag loolu moo tax ñu nekk nag ci suñu ñaareelu jataay am yéene nag fas yéene dalal ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Seck féete ñu ndijoor ak Serigne Cheikh Fall Taïf ñu fas yéene waxtaane nag tomb bu am solo muy Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak njaboot gannaaw bi fi cheikhul xadim bàyyeekoo ba mu def lépp la nga xam ne ni sëriñ bi santoon na ko ban taxawaay nag la amoon ci njaboot gi ngir bañ a jëkk ngir bañ a euh, guddal dañuy jëkkante ak waxtu wi jox suñu euh, jëwrin sëriñ Basiru sekk mu daal di nuyoo ñu door a àgg ci sëriñ Cheikh kon bisimilah. bisimilah bisimilah wa maa tawfiqi illa billah ku ñu déglu ak di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi lislaam mooy salaamaaleykum wa rahmatullah tàmbali nuyu bi ak siyaar bi ci borom ëtt bi di Cheikh Ahmadul ak mboolem jabaru Cheikh Mouhamadoul Moustapha gépp di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaan yàlla itam jotaay yi suñu borom dajale ñu ci ak tawfeexu sëriñ bi kon sëriñ Abdoulahi ñu ngi taxaw lu doon incha allah. jërëjëf sëriñ Bassirou ci nuyoo yu am solo yi kon sëriñ Cheikh Fall Taïf ni ñu ko waxee léegi rek euh, ñu jox la kàddu gi nga daal di nuyoo ñu door a dugg nag ci tomb bi euh, muy Cheikh Modou Moustapha ak taxawaay bi mu amoon ci njaboot gi ginnaaw Cheikhul Khadim kon bisimilah nuyoo. aouzu billahi min seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sawirin wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax ni ko waxee ci pàkk bu tedd bi ngir waajal bis bu màgg bis boo xam ne ni bis bu am solo ci yoon wi muy bisu bi Seex Xaadim bi ñu bisewoon fii ci Touba ni ñu ko suñu Ablaay waxee nag ñu koy laytaayale ak ay waxtaan yoo xamante ne bii dana gën a mën a fàttaliwaat nit ñi Cheikh Amadou Moustapha waaye ak wajurum woowee waaye ñu gën ca mën a jëlee ay bind nag yoo xam ne bii danañ ko tari ngir mën a waajal suñu ëllëg kon xamal loolu lenn la rek ci jataay bii bokk ci plateau yooyu incha allah jërëjëf Serigne Cheikh Fall ci nuyoo bu am solo boobu xam naa kon dañuy desandi ci yow rek laaj bi ñu jëkk a samp ñeel tomb bi nga xam ne ni tànn nañ ko tey buñ bëgg na xam tey njaboot ban wàccuwaay la am ci lislaam sukkandiku ci alquran ak addis loo ñuy leeral foofu waaw jërëjëf sëñ Ablaye euh, njaboot de dafa bokk ci li nga xam ni lislaam jox na ko dayo lool jox na ko wàccuwaay bu baax a baax a baax ci taxawee ko waaye saytu ko ngir mu mën a jof ca buy jof sit maanaam jof ak ànd ak ni ko boroom bëggee woon ndax suñu waxee njaboot mooy ay jaam lan doon ay jullit mu mel ne suñu waxee njaboot nag la ñuy wax rek mooy ka leen jaboote ka nag kon mel na ni am na bu rëy boo xamante ni bii euh, su ko xamee ak bu ko xamut santeef na ko ko te loolu yaakaar naa ni nga ko waxee alxuraan wax dëgg wax ci lu baree baree bari yoo xam ne bii day delloo nit ki ci mu bàyyi xol njaboot gi nga xam ni moom la jaboote loolu nag yaakaar naa Cheikh Amadou Moustapha mi waxtaane sàmmoonte woon ak moom lool ndax moom ñëpp xam ne ay jëfam dina dafa waxoon ni moom ak jub rek moo ko doy ak njub nag ku ko bëgg a tànq faaw da ngay dellu ci alxuraan waaye da ngay dellu ci hadis loolu nag kon moom moo taxoon mu bawoon xel ak njaboot lool waaye maanaam nag teg ko ci njàngaleem lislaam maanaam muy ci njàngaleem diine loolee nag boo demee ci alxuraan da nga fekk ay ayaat yu bari yoo xamante ne bii day bàyyiloo xel nit ñi rawatina jullit ñi importance gu ak njaboot am importance waaye taxawu gu leen war a taxaw nga xam ne kon day mel ni njaboot dëgg-dëgg ngir mu mën a jof ca ëndaale lañ koy soxlaa day aaja ak taxaw loolee kon moo tax ay ayat yooyu baat auzu billahi min seytaan rajim suuratu suuratu tahrim da ngay fekk suñu borom wax naan yaa ayyuha allazina amanu xu anfusakum wa ahlikum naara ah, wal hijaara alayha almalaikatu xilaasun sidadun laa yasaxoon allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun maanaam suñu borom di wax ni yéen nit ñi kat na ngeen fegal seen ndax su waxee ahli mooy seen ñooñ rek may mooy suñu njaboot na nga leen fegal sawara ndax sawara soo si su su tàng la na doon doju tàng ca it ay malaaka yoo xam te ne bii maanaam ñu mën a mbugale lañ ca ñoom nag lépp lu ñuy def rek suñ borom moo leen ko sant kon bu ngeen bëggee mucc ci sawara kon na ngeen ci maan na ngeen fexe ba seen njaboot ngeen moytulu leen ko ca teg leen ci yoon woo xam te ni bii danañ ca mën a jaar ba mën caa mucc loolu nag mel na ni buñ ko waxee day joxañ yu baree baree baree bari bu fekkente ni da ngaa bëgg a muccal sa njaboot ci sawara euh, noonu ko laay yi waxee nag noonu nga maa deme ci xadis yu bare bari yu koy firndeel donte laay sax mën naa mën naa ni gën naa bari waaye da ngay fekkaat ci xadis yoo xam te bii day firndeel loolu alxuraan alxuraan wax ndax xadis bii nga xam ni moom la jëlee ci abu abu hurayra radiyallahu anhu muy wax ni maanaam dundal sag njaboot maanaa nga jël sa alal dundale ko sag njaboot wala nga jël sa alal def ko ci yoonu yàlla wala nga jël sa alal def ko ci fayal nit ki ay borom wala nga jël sa alal saraxe ko wala nga jël sa alal jox ko ay miskin nee na li muy am am am solo jël sa alal léegi financé ko ci sa njaboot nee na mu ëpp ab yool loolu kon la muy tegtale mooy importance gi nga xam ni ak njaboot am nga ko ndax yi ñu wax nii yëpp ñëpp xam ni yool bu mag a mag moo ci nekk waaye li muy bari bari ay yool sa alal ji nga jël dundale ko sa njaboot teg leen ci aw yoon Seydina uh, Abu Hurayra nee na yonte bi alayhi salaatu salaam nee na la ci nit ki di amee ci ab yool doo ko amee ci yeneen yi mu wax nii yëpp waaye nga demaat benn benn xadis boo xam ne bii ibnu ibnu Mas'ud ba tey moo ko nettali xam naa ba tey du du soreek bii ma wax nii foofa dafa wax ni nga jël sa alal def ko ci yoonu yàlla wala nga jël ko sa alal def ko ci lu ab xare ak yenn yu mel noonu nee na nga jël sa alal dundale ko sag njaboot ngir ñu mën a tege ci aw yoon ngir mën a jaamu yàlla nee na la ca jaam bay jëlee kenn du xam na lay toll kon mu ëpp ab yoon kon yi mu wax nii yëpp kon loolu la muy tegtale mooy waaye nag. dundal gi ngay dundal sa njaboot sa alal mooy ngir ñu mën a teg ci aw yoon ba mën a jaamu yàlla kon loola bokk na ci yi nga xam ni ay ay xadis la yoo xam ne bii yuñ mën a sukkandikoo la waaye soo déggee benn xadis bii nga xam ni ba tey ibnu Mas'ud moo ko nettali ngir njaboot niñ ko war a responsabiliser nga xam ne day wax ni kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi léegi yooyu nag mu koy xajale di wax ni boroom kër bu nekk maanaa mas'ul la an ra'iyatihi ci ak njabootam waaye di wax ni imam bu nekk mas'ul la waaye di wax ni soxna su nekk sax responsabilité bañ la jox ci sa kër maanaam responsabilité bi nga xam ne sa boroom kër dala koo jox ci ak njabootam wala ci ay mbiram yooyu mas'ul nga ca te yii yëpp nag. kenn ku ne da koy delloo incha allah loolu la kon day day day joxe ne Sëriñ Ablaay maanaam dañ ko war a taxaw bu baax a baax a baax euh, njaboot nag mel na ni suñ ko dee taxaw dafa bari ay fan yuñ koy taxawoo bi ci njëkk taxaw ak njaboot dara jiiru ci yar ko maanaa yar sa njaboot bañ tegu ci aw yoon boobu kon dara du ko ci jiitu bokk na ci it mooy nga xamal ko ndax nit it ngir moo teg ci mu teg tànkam ci aw yoon day xam waaye bokk na ci it maanaam nga tabax ay jikko yu rafet ci moom jikko yooyu nag bi ci njëkk mooy yow sa fànn bopp yow sa jëmmi bopp yaaye defar sa bopp ba nga xam ne sa njaboot li muy gise ci yow day doon jikko yu rafet day doon jëf yu rafet nga xam ne maam du mën a roy la ne lu du loolu bokk na ci sax yaru njaboot mooy nga tànnal ko sax wajur bu baax maanaam yar maanaam am njaboot gu baax bokk na ca nga tànnal ko waajur wu baax ngir bu ci jógee moom it mën a am référence wala mën a am cëslaay lu mën a tegee ba jaar ci aw yoon. bokk na ci sax bëggee njaboot gu baax it di leen tàggat ak di toppatoo seenu wér-gi-yaram maanaam ndax nit fi ne mën naa yonjoxo yonjox ba tey lañ lañ bëgg ci moom dëgg-dëgg mën naa bañ am ca la koy waral mooy ak ñàkk wéram bokk ci it maanaam nga yittewoo sa njaboot ci seen i a seen déplacement ku ñuy àndal lu ñuy def ak lu ñuy wax loolu lépp nit ki da ko yittewoo ngir mën a mën a teg ak njabootam euh, ci aw yoon yooyu kon sëñ Ablaay yenn la ci yi nga xam ni mas na koo jël cëslaay ci ku bëgg ubbi ak njaboot way laa nga am njaboot njaboot bu baax mënoo cee ñàkk a taxawi nii ginnaaw bi nga xam ni alxuraan wax na ci ay aayaat yu baree bari kon joxal ko importance kon day mel ni taxaw ak njaboot farata la kon ñàkk a taxaw sa njaboot day mel ni nit mën na caa jëlee bakkaar mën na caa jëlee sax euh, man mën na caa jëlee mbugalum suñu borom ndax gannaaw yonent bi aleyhi wax na ni am ñetti doom yu jigéen taxaw leen di leen toppatoo bañ am borom kër te yàlla dogal mosuñoo mooy yàlla ba am kër suñ borom am lu ma ca warlul loolu ko na nga déggee ni ku am ak njaboot yi nag ca taxawoo leen ba ayib am ca. kon ñu noonu nga ci amee bakkaar kon daal xam ne sëñ ci tënk loolu daal mas ko juddee loolu nag Cheikh Amadou Moustapha kon taxawaay bi mu tax mën ki nga xam ne moom lu muy def lépp ci diine la ko teg ginnaaw bi ko tànka ci alxuraan ak sunna kon nag moo tax moo tax nag mu taxawee nii ni mu taxawee njaboot gi ba kenn ko ne mën a jaar ci yoonu si Ablaye Cheikh Fall Taïf noonu nga ko waxee rek xam naa buntu boobu la ñuy ubbi euh, door jox kàddu gi sëriñ euh, Basirou Seck waaye dañuy def benn résumé bu gàtt rek ci li nga xam ne nii traité nga ko muy euh, importance ak wàccuwaay bi nga xam ne nii njaboot am na ko ci lislaam nga sukkandiku ko ci alxuraanul karim ak addis kon mel na ne ab responsabilité la boo xam ne nii gàccu na ci ndoddum képp koo xam ne nii rek am na ñu la suñu borom booleel xam naa ne bu ñu waxee njaboot dañ mën nañ koo partager en deux parties njaboot gi nga xam ne ni suñu borom dafa dogal mu meññe ci yow ak ñi nga xam ne nii yaa leen yilif ci njaboot loolu dinañ ci dëkk kon sëñ Basiru bu ñëwee ci thème ci ci tomb bi daal di euh, sukkandiku ci li nga xam ne moom la Serigne Cheikh Fall Taïf wax dañuy daal di ñëw ci Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou euh, Cheikh Modou Moustapha gannaaw sëriñ bi taxawaay boobu nga xam ne nii am na ko ci njaboot gi nga xam ne nii moom la ko sëriñ bi booleel muy njabootu boppam loo ñu mën a baaxe foofu. jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Cheikh ci tomb yu am solo yi nga xam ne andi nga ko mel ni nit nag bu fekkee ne daa am lu muy waajal la ca jiinu mooy fondement Cheikh Mouhamadul Moustapha nag. ñu wutal ko fondement bu dëgër ci aw askan waaye wutal ko fondement bu dëgër ci xam-xam tànnal ko néegub ngor tànnal ko néegub jom tànnal ko néegub fit yar ko boole ci kon kooku li nga xam ne moo war ci waajtaay Cheikhul Khadim waajaloon na ko sëñ biir am ay ponk yum tënk ci yoon wi yoo xam ni sopp da caa bokk tuuba li abdin muridin saarixin lahumu bi xidmatin aw bi bin aw xadiyati nga xam ne cofeel dafa bokk ci lii ponk yoon bi cheikh Mouhamadul Moustapha amoon ko lool ci cheikhul xadim xam nga Seydina Aboubakrin Saddiq li tax mu raw ci mboolem sahaaba yi yonent bi daf ne woon du julli gu bari du koor gi bari walakin xarra fi sadrihi li na ci xolam la lool nag mooy soofeel ga daana waxit ne man araada an an yansura yem si fawqa sira fal yansuri ila abi bakrin ku bëgg a xool aji dee juy dox ci kaw suuf na xool Aboubakrin Saddiq bëgg gi mu bëggoon yonent bi dafa wàjjoon res bi ba nga xam ne buy wax ay seer da lay xeeñ ngir bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon cofeel googu Moustapha da ko Tuubaa mënatu waaye nag lépp mu lalu ci xam-xam ndax cofeel bu àndut ak xam-xam noonu bu xam da koy gën cofeel googu nag moo tax gannaaw sayxul xadiim bi nga xamee ni indi nañ ko Tuubaa ci nam ko bëggee woon digaloon ko Cheikh Moustapha ba noppi maam Thierno bi mu ñëwee def ne woon sëñ Tuubaa ab jullit la ab julit bu fi ñëwee dañ koy miraas sëñ Modou Fall lam ca teg mooy kër lu ne mën naa taxaw ba mu des njël la njëlli nañ ma wax ñaata la ma fay ko daa dafay njëlli ah, li may njëkk nag ci njabootuk boppam ak njabootuk sëriñ bi fay njëlli ba mu mat calal ne liggéey baax na lool ñu tàmbali nag di dunde li woon ci kër gi ba mu jeexee nee na bàyyi woon na fukki fukki tundooti sàq mu jeex ma bojaat meneen indi ba mi laata ba dugub jooju laata njeex dugub ñoraat daal di yiir magi bar sàq yi ba kenn du leen fekk fañ nekk te loolu leen war daan leen fa fekk loolu mu taxaw ci njabootu sëriñ gi sëriñ bi ñi ci mat a jàng ak ñi ci mat a làddanti moo ko defal boppam mel ni mooy seen waajur cofeel gam amoon ci seen waajur mu séddale ko ci njabootu sëriñ Tuubaa gi fi nekk kenn ku nekk la war ci yow ci taxawaay mu def ko ba mu sëkk loolu nag addina dana ko laaj jamono yi nu toll ndax bare na luy am loo xam ni mag mu déggalul waajuram su bëgg yilifi rakkam ñëpp xam nañ ni mënta nekk waaye ku déggal si waajur boo bëggee yil say rakk mu sotti kon loolu ñu bari war nañ ci jànge Abubakar Sadiq la ko taxawoon mu yilif sahaaba yi daa déggaloon ñu tabi alayhi salaatu salaam bëgg ko bëggeel goo xam ne kenn dëbbu ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha it noonu la meloon ci noonu la meloon ci Cheikhul Khadim ba tax li manoon ci jaboot gi mu def ko ci wàllu yar ñi nga xam ne moom la yaral boppam moom Serigne Touba ak ñi sëñ Modou Sayar mënoo leen a xàmmee moo sëñ Blaat daan wax ne lu ma naqari lu leen naqari ci man na ngeen ko lu ngeen gërëm lu leen neex ci man ak lu leen naqari ci man na ngeen ko gërëm Cheikh Moustapha ndax lu Cheikh ko ci def euh, na ci ak matam bi nga xamante ni bii ku mel ne Cheikh bokkoon ci ñi gën a néew ay at ci jamonoom bi mu jàngee ba ñëw amutub dëkk dëkk bu mu sanc boppam Touba Kayel mu nacc ko sanc ko 1922 moom la fa tuxale doo amee boppam yóbbu ko Madina jël Touba Kayel jox ko Cheikh Mouhamadul Mourtala sëñ Abdoulaye it sëñ Abdoulaye naka noonu bi nga xamante ni bii dem na ba war a amul dëkk dafa jël kàbbu gay ko ci doxal la ko Serigne Touba dénkoon juróom yooyu ne ko bu ma fi jógee nag ma yóbbu Touba te bu xaddam nag ma taxawal njaboot gi te ba ba bañ buñ jooy baay bis bi ma fi ñëwee saa bu delsee nag ma woor ru yëpp ñu dajafi sama dëkk bi nag ma fi taxawal jumaa na nga ma saytul sama dëkk ba mu nekk ci loxo ñi ma fi nekkal juróom yooyu Cheikh Moustapha réussir na yëpp gannaawam loolu nag ab xam-xam ak aku fit akum xel ak njàmbaar moo ko may waaye bu ëppoon mbaa mu yaafus mbaa mu ragal dana ci am loolu dana ci manqué kon loolu moo tax buñ ko woyee kamaal lu mënu lay doon njabootuk boppam gi yar na leen yar boo xam ne bii ñim yar képp mën nañu yor àddina boo njëkkee ci ñaari doomam ñi nga xam ne ñooy ay taawam am nañ melokaan woo xam ne jabaru Sëriñ Tuubaa gépp bàyyi woon nañ leen xel ngir seen melokaan Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ak Serigne Mbacké Madina moo leen tërbiyal boppam yaral leen boppam ba noppi nag xamal leen lan moo di murit ndax nit mën naa jàng ba bari xam-xam waaye dana am lu mu umpale ci murit gi waaye loolu lépp da koo def ci ñoom ba taxoon ñoom it ñu mën a yor àddina Cheikh Moustapha bokk na ci xam-xam bi nga xam ne moom lay def ci nit ci kattanam ba nga mën a yor àddina mooy da koy tàmmal teraanga yar ko ci teraanga ba nga xamante ni bii fu mën a nekkati nit ñi rek fay ne ndax daana wax ne boole nit ñëpp so ci mel mbedd nay mbeddum teraanga Cheikh Moustapha bokk na ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci gannaaw njaboot gi képp koo xam ne kii war lu la sa waajur waroon defal cib taxawaay def na ko ba mu mat sëkk ndax daana wax na kenn ku nekk ka ngay dëkkaale maa koy seetal saa bopp waaye du ma la bàyyi nga wëral ko sa bopp ndax keneen koo fi indi day yor doole sëñ Tuubaa ak xelu waajur mu jigéen moo tax ñëpp moo leen taxawu ci fi leen sëñ Tuubaa waroon a féete kurut Cheikh Mouhamad Fadal doo Cheikh Mouhamadul Amin doo sëriñ am bi Borom dër bi doo sëriñ Basiru la la war ceew lépp Cheikh Moustapha moo ko def tax wax nañ ne soxna Astu toog diir bu yàgg defe ne Serigne Touba sëñ Modou Sa kenn la ci taalibe yi Serigne yi ndax loolu la leen daan wax sëñ Saliou ba ko jox këram gi ci mbuur daf na ko dogal ma ne ñoo bokk de dogal ma ne taalibu Serigne Touba la mu nangul ko loola waxoon na ko ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal loolu lépp daa leen ñemeloo boppam ndax kilifa day ñemeloo boppam ak njabootam bañ mañ koo di soxla loolu Cheikh Mouhamadul Moustapha amoon na ko ci moom yiir leen nag ba jenn lor di jóge ca gannaaw di leen fekk fañ nekk yiir leen ba jenn lor mënta jóge feneen fekk leen fa nekk loolu bokk na ci di kilifa mënal moroom ja di kilifa mënal ak njabootam Cheikh Mouhamadul Moustapha defoon na ko ci gannaaw Cheikhul Khadim ci njaboot gi naka noonu itam kenn ku nekk moo saytu sam njàng sama waajur moo ma wax ne ma sëñ Tuubaa moo sëñ Modou Sa moo jàngal sëñ Mortala mi bari saala nee na mas nay séddale reer bi ca Taïf ñu ne ko mbàkkee teeñ koy jox nit mu di ko séddaleel te nga nekk ci yeneen yitte mu ne dama bañ jox ko warta am ak xañ ko war a am sama baay moom ma wax ne ma moo ma téyel alquran ma tari maag sëñ ibra ab sëtu nee na ma lii ci moom laa ko gisee téyel ñi mokkal di jàngal nit ñi xam-xam di jiite ca jàkka ja di séddal leeral bi sa bopp nee na kenn nettali moom moo ma ko moo ma ko defal te nee na ma itam lu ñu la mën a wax ci moom man ngi alquran moo ko raw ndax maag sëñ ibra ab sëtu la boole di téyelandoo te bi sëñ Ibra Satu gagee ñetti yoon daf na ko da ngay beq jiwaat nee na sama baay nee lii moom taqat sëñ Ibra Satu kon kooku nit la woon koo xam ne kii bu ñu la wonee jëmm ji da ngay def ne dund ñaar fukki at te cinquante neuf la dund mës mhm. ta noppalu yitte jooju nga xam ne moom la joxoon ndénkaani sëñ Tuubaa ak njaboot gi mhm. taxoon na 1943 bi mu wéradee bi sëñ Basiiru tàggu ko ne ko damaa bëgg andi ñu saytu yaram bi mhm. docteur yi ba ñëwee lañ koy wax mooy kii daa wul amul benn maladie bu ne ci yaram bi bi ñu demee ba bind ordonnance ba jox sëñ Basiru mu ne ko sa gars yi lu ñu wax mu ko nee nañ amiwoo jàngoro de waaye da ngaa néew waa wax nañ dëgg de ku baax ki bi mu fi jógee léegi néew ma jàng bët guddi te loolu lépp yitte yi mu amoon diggam ak boroomam ak yitte ji nga xam ne amoon na ko waroon na ko ci njaboot gi ak ndénkaan sëñ Tuubaa li ñu ko dénkoon tax na sëñu tëdd dina ro kon sëñ Ablaye ñu ngi taxaw foofu ba ca kanam incha allah jërëjëf sëriñ Basiru Seck ci euh, tomb bu am solo boobu mu mel ni mën nañ ci dégg Cheikh Modou Moustapha li nga xam ne ni euh, def na ko ci taxaw njabootuk Serigne Touba ak njabootuk boppam ginnaaw bi Serigne bi ñibbi aljana mën nañu wax ne lépp lu yittewoo defal na leen ko moo xam muy jàng moo xam muy euh, dëkkal leen moo xam muy taxaw leen ci anam yépp ba nga xam ne nii keneen képp kum ci doon feneen foo dem rek jëmmi Cheikh Mouhamadoul Moustapha ngay daal di gis loolu yaakaar naa ne euh, indi nga ko ci sini biir biiri kàddu waaye niñ ko waxee léegi rek xam nga bu ñu waxee taxawu njaboot wax nga léegi njabootuk bopp ak njabootuk Serigne Touba waaye nag murit yi nga xam ne ni ñoo toppoon ci sëriñ tubaa moo xam muy seex yi moo xam ñeneen ñoom ñëpp mën nañ ne am na taxawaay boo xam ne ni itam Cheikh Modou Moustapha taxawoon na kon sëñ Cheikh Fall ginnaaw euh, taxawaay bu solo boobu nga xam ne nii gis nañu ne Cheikh Modou Moustapha amoon na ko ci njabootam boppam ak njabootuk Serigne Touba. taalibe yi nga xam ne itam ñoom mën nañ leen a boole ci njabootuk Serigne Touba ban taxawaay. le Cheikh Modou Moustapha amoon ci ñoom ba tey jii ñu gis réalisation yu mag yoo xam ne ni xëy na taxawaay boobu moo ko waral mën nañ cee tudd jumaa ji ak yeneen yu ñu demee. waa jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf Cheikh Modou waa xam nga foofu moom dafa mel ni euh, loolu Cheikh Mamadou Fadel waxoon rek waaw Cheikh Mamadou Fadel dafa waxoon ni sos moom jeex na nee na lépp lu mas mat a sos magam ju baax na magam ju baax ji sos na ko ñoom dañuy sof rek. ndax njabootu li ñu ko waxee mooy xam nga njaboot it lislaam dafa yaatu lool ndax man nga xam ne képp koo xam ne bi ak kilifteefam ci yow la nekk kook sa njaboot sa njaboot la bokk. Euh, Cheikh Moustapha nag dafa mel ni bi fi Cheikh mi jógee dafa defaat beneen taxawaay boo xamante ni bii yoon yi mënu ko woon a ñàkk maa ci njaboot gi ca loolu ba fi ñu toll nii may sa wax loolu mooy dox ndax Cheikh Moustapha ni mu yoon wi maanaam boo ko tàmbalee ci. comme ni sëñ Bass ci ak njabootam boo ko boo ko génnee waaye tàmbalee ko ci seex si nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bi Cheikh Modou dafa taxawaat taxawin boo xam ne bii tey kenn ku ci nekk fa sa waajur nekkoon fexe ne ba samp la waaye di la dimbale ba la sa waajur doon tekki ci seexul xadim di la mu dimbale yow ba nga mën koo tekki ci yoon wi waaye nag la ko jiitu nag mooy ak dafa mel ni Cheikh Moustapha ak sax dafa mel ni maam maanaam façon tarbiya bi mu doon maanaam bi muy bu bees la bu buy door a génn ca maanaam ba fi mu toll ñuy wax ak yéen modèle boobu ma doon tarbiya képp kuñ ci tarbiya rek da nga ràññi ko muy ci moom ba ci taawam bi ba ci daara yim sosoon seen comportement seenu doxin nga xam ne da ngay silvisé ku la gis xam ne yi mi ab donc ab nga waaye da ngay silvisé ba pare doon ko dégg diine doon doon ko dégg mu rek gi maanaam loolu ba fi mu toll nii da cee ràññi ko maanaam moom ni mu ko ni mu ko organisé woon ku ku ku ci laal ci moom rek. da nga ciy wuuteeg ku ci ku ci lalu ci moom kon loola mooy ak taxaw ñi nga xam ne maanaam ay seex lañ comme ni ma ko waxee woon mu taxaw leen ba te ban ngaa wax ni li nga xam ne moom lañ xam ci yoon yi muy gépp kilifa gi fi jóge ñu fexe ba sa sa taaw taxaw taxaw la maanaam wuutu la loolu ci organisation Cheikh Amadou Moustapha la ca it mbokk yi loolu bu ko bu fekkoon taxawoo koon noona luy naqari lijjanti lay doon ndax nit nag ngir mu topp rakkam loolu moom daa mel ni Cheikh Xadim lañ ko mas a ak Mamor Diarra waaye day mel ni yombatut waaye taxaw gam gam ca taxaw moo waral tey léegi ñëpp a xam fi ne su ko fi kilifa kilifa jógee rek kan moo fay toog waaye moo def ca beneen taxawaay nag kilifa ga nga ne tey jii nii moo war a toog moo tax néew na fi tey nga gis ci yoonu murit koo xam ab taawam ma nga ci këram déedéet dana ko génne ngir ñu formé ji ko formation yoo ne bi fi tey jii nii yàlla yax mais saa ba fu kilifa génnee dana ma ñëw tax taxawaayu kilifa ga ci xam-xam waaye ci taalibe waaye ci ak mat kon loola taxawaay la bu am solo boo xam ne bi Cheikh Amadou Soufa def na ko ci ñi xam ne ñooy ay taalibe waaye ci ñi nga xam ni maanaam dañ ko maanaam mas na ko tuddee ak njaboot waaye muy ñuñ ko jox ñooñu Cheikh Amadou Soufa da caa taxaw taxawaay boo xam ne bi fi ne képp koñ ko jox ba nga jógee fi boo demee fa nga jógee woon yow ab ràññikuwaay ngay doon ca loolu mën nga koo tàmbale ci ay turandoom Cheikh Amadou Soufa képp kuñ ko tuddee jox jox la ko yàlla defal ko tawfeex ba wóotu lañ seen wajur ca kenn ku ne ba nga demee ab làmp nga fa nga nekk ca loolu fa nga ko jëlee mooy ci Cheikh Amadou Moustapha noonu waxee Cheikh Amadou Moustapha Fallu nettali na ko nee na Cheikh Amadou ci la gisee kilifa goo xam ne bii tey mooy jàngale mooy jiite mooy séddale waa nga xam ne lépp moom da koy def nga xam ne képp comme tàggat boo fi jógee loolu lépp da koy man maa ngi jëlee ci sëñ Moustapha Béto yal na ko yàlla dolli leer moom yàlla dogal na ma ziyaar joon ko benn bis mu dem a xamal bi yàlla dogalee mu bind ab kaamil ba di ko andil Cheikh Modou Moustapha wax na ma kero ñaari doomi sëñ Moustapha yu mu fa fekk euh, sëñ Aliou la wax ak sëñ Mahamadan Xarilo waaye ne bi mu nuyoo ba noppi da leen da leen a woo ni leen kaay leen nuyoog seen doomi baay jii daal leen nag kii de gis ngeen ni mu andi daal leen lu mel nii laa bëgg bala ma leen a gisati ngeen ngeen def ko loolu Cheikh Modou Moustapha bi moom ma ko kon njaboot gi nga xam ne képp kuñ ko jox def na ci yow wàccuwaay woo xamante ne bii moom ni mu taxawee ci kanamu njaboot Cheikh Xadim gi te mat leen sëkk yow boo fa demee boo demee fa fa nga jóge woon noonee ngay mel. Euh, ba ci ni ko suñu Cheikh waxee njaboot gii nga xam ne ñoo njaboot Cheikh Xadim gi xam nga taxawu njaboot sëñ dafa am ay fànn yu ci nekk xam nga ki dana bëgg dana taxawu njabootam bëgg leen ba am la sa bopp ak njabootam bëggee def du leen ci génne. ngir ak bëgg Cheikh Amadou Soufane nag dafa matoon ba nga xam ni képp ko aju si njaboot gi saa boo gisee bëgg ngaa def loo xam ne jàpp na nii gënut dana la si jëlee kilifa gu baax nettali ni Cheikh jàng na cam ca ca bokk ak moom wajur bi mu jàngee ba noppi daa bëggoon a ni day jàngi faneen mais bi mu tàggoo Cheikh Amadou Soufane da koo jox ndigal ni ko na toog bi mu toogee yàlla dogal na ca toogaay boobee ca la ko Cheikh Khadim njëkk a feeñoo ca la ko ca njëkk a feeñoo sañ ab dëkk am turam ko tuddee Cheikh Moustapha xam ne ko turoo dafa diis soppi ko tudd ko tudd ko waneen tur loolu kon bàyyi xel ci njaboot ak sàmm ko moo ko waral ndax ñaar yooyu yëpp benn bu ci ne bëgg njaboot mën naa tax maanaam mu bàyyi mu jàll ba mu ko ne day génne dem jàngi ci biti mën na ko demal wala ba mu tudd sance ab dëkk tudd aw tur mu bàyyi ko ca mais kon dafa am mat sëkk goo xam bii li mu lay bëgg bëgg bëgg ak li muy bëgg bëgg loolu la neex loo jàpp ne lii moo gën ca lay jaare ni ko Cheikh Ahmad sëñ Basir waxee loolu soxna may nettali na ko ngir taxaw gi mu doon taxaw njaboot yi nee na ñoom jàppoon nañ ni Cheikh Modou Moustapha seen talibe bàyyi la loolu nag yemalewu ko ci njaboot gi mbokk ak Cheikhul Khadim waaye ay rakam ay rakam maanaam li bëgg wax mooy doomi Cheikh yi laa bëgg a wax ak talibe yi kon ñëpp la yemale woon ci fas yéene leen a jofal ca kenn ku ci nekk bi bu leen di ci digg ci Cheikhul Khadim maanaam Cheikhul Khadim bëggee woon nu mel ni danañu mel ca noonu mooy ni li suñu borom bëgg mel ni ci ab jullit mel ni ab murid saalix mel ni kon taxawaay wala Cheikh Mouhamadou Moustapha amoon ci njabootu Sëriñ Abdou Lahi macha allah jërëjëf Serigne Cheikh Fall Taïf kon mu mel ni euh, foofu leer na nañ kon sëñ Basiru dañuy dikkaat rek ba tey ci tomb bi waaye xam nga bu ñuy waxtaanee tomb bu toll nii ak fi jamono toll du ñàkk nag ñu jël ci njàngale mu mel noonu ñu jël ci euh, jëf ju mel noonu ñu mel ni ñu jël ci jëmm ju mel noonu muy Cheikh Modou Moustapha taxawaay bu am solo boobu ñu daal di koy déggatal waa jamono ñu daal di koy indiwaatal waa jamono ndax wax ngeen ko léegi kilifa yemul ci ki nga xam ne ni rek dafa euh, wala kilifteef yemul ci ki nga xam ne ni rek dafa bàyyee ko ci yow buñ ko jëlee ci euh, mbirum àdduna ki nga xam ne ni moo jiite réew mi ci benn côté ñun ñëpp ak njabootam la ay ministre am ñun ñëpp ak njabootam lan nga dem ci beneen côté bi kon yaakaar naa ne jot na sëkk nag ñu daal di ñëw ci tomb bu am solo bi royee ci Cheikh Modou Moustapha ngir nag indiwaatal ko askan wi ñu xam lan mooy responsabilité diggante ki jiite wala ki yar ak ki nga xam ne ni euh, mooy yare jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Cheikh ci jotal am solo bi mu mel ne Cheikh Mouhamadul Moustapha dafa jàppoon ne taalibe bi sëñ Tuubaa yëpp moo leen war a yor seen dund moom la war seenam moom la war seen lépp moom la war. ba tax na sax ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu mu daa laaj daa wax ñi ñi dëkk Tuubaa moom daanaka da daana leen xaw a ci léeg-léeg waaye ci mën a def nuurun ala nuurun la loolu yi nag ndigal la Sëñ la ci moom ndax ñu ma wóolu seeni wax ñu nettali ma ko nga xam ne sama waajur moom ma nettali ma bi mu sancee Tuubaa kay 1922 dafaa ñëw bëgg a dugg xaloo maanaam tàggu ji sëriñ bi ci njaarim ne ko damaa bëgg na tukki ci biir kër gi sëñ bi na teg mu baamuwaat ko sëñ bi ne teg ba ci yoonu ñetteel mu ne ko Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko jaxasoo ak bindeef yi di xam seeni soxla da ci def la nga mën moo gën di wér di jaamu sa borom muy benn ñaareel bi itam bi mu fi nekk wutu sëriñ bi ñëpp xamoon na ne ay yére yombut dañ daan def ku ku fi mas a jógee mu jël am mbubbam jox la ñu sànge la ko am kuñ mas a denc ba noppi ci ñami waxal mooy yoon sa laaw day daanaka lu lii ma daanaka li ko tey des ci sama yére bëriwul waaye taal diir bu néew am taalibeem bu dëkk Gàmbi andil ñaari piis mbasin jox am piisu mbasin jox mu laaj ko ne ko ndax jaar na fa mu war a jaar mu ne ko déedéet mu ko demal jaar la ko muy duwaan mu delluwaat ba foofa bi mu waxee euh, kii nekk ci duwaañ boobu tubaab bi fi nekk fa mu jóge mu laaj ko lu ko tax ñëw mu wax ko ko mu yéemu ci kàddu gi ak jëfik ndigal gi ak ko gi mu bëgg njub ak nit ñi ni ñu bëgg àll tam defi ji mu yëkkatiwaat beneen piis ne ko may naa ko duwaan bi ak addi mu ñëw ba mu ñëw mu ne ko dénk naa ak njub ak tegu ci aw yoon kon loolu lépp am njàngale lay doon moo xam ni danañ ci war a mën a mën a jàppe ne Cheikh Mouhamadul Moustapha ku mënoon a dimbale nit ñi la ku leen bàyyi woon xel la yëmale woon ko yëmale woon taalib yi nag njabootu Sëñ Tuubaa mooy bàyyi boppam yi yi ko fi Sëñ bàyyee loon ak leen ci magi taalib yi ku ma sa jóge Kajoor di ñëw da lay wax ndax jaar nga am Ceerno boo ne ko déedéet mu boole lan ko jox ak lam am ne la dama yotul ko bàyyi boo jógee côté bii ne la ndax jaar nga ci maam Cheikh Anta boo ne mu boole lam yor jox la ko ne ne la demal. ku nekk dalaa teg fi barab nekk ne bu ko fa kenn weesu di ma fa fekk sëñ Abdoulaye bi mu ko yóbboo kàbbu gay daf leen sëñ Tuubaa ngeen ma doon topp andi naa ko kon mi ngi nii. Euh, bu dee ci wàllu taalibe yi nag maa ngi koy nettali sànq baay Mor sekk mook sama baay ñoo bokk benn baay. xëy na mbay mi xaw a doy kiimaan lool bi mu defee li mu def lépp ña kayitu ñaar fukki dërëm la dese. mu xamul nu mu ko yóbboo àddee parce que booba mag ñi buñ masaa bay ba noppi lañ rek la ñu mën a mu xeeb ñaar fukki nee na bi mu dee mënu ko ñàkk jox sëñ Manoune nu mu yëgg nuyu ko ne ko ah Mbàkke day ngi jégalu ndax àddee ji leen tuuti lool mu ne ko tuub ko moor ne ko fay nga seko ko mu ne ko waaw mu ko fay nga lemp mu ne ko waaw mu ne ko wutal nga baa kër gi luñ sol mu ne ko mu ne ko luñ mas am na fa mu ne waaw mu ne ko xanaa xamul loolu boo ko defutoon man la war loolu boo ko defutoon man la war boo fayutoon sa ko maay fay boo fayutoon lemp maa koy fay kon daa jàppoon ne moom moo war a dundal njaboot gi wax nañ ne am nay jamono amoon na fi oto beneen oto bu ko joxoon boo xam ni ci jamono yi 39 45 bi guerre bi déclaré dund bi manqué maanaam réew mi nekk ci crise mondiale benn colon ci tubaab bi nekkoon njaareem am ku mu wóolu mu ñëw mu ne ko bu fekkee man nga fukki fan ak juróom mu ne nga jox ma oto sumul ma jox la oto bii ba nawet wàcc da ngay andi oto su ma joxe fukki fan ak juróom yu ne nga andi benn tubaab bi jubóog moom ci loolu. ki ma ko nettalee nee na sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëñ Bassirou bañ ko yëgee ñu jàpp ne lim jo lim joxe oto bi néew na bi biñ ñëwee di ci wax ak moom ne sëñ bi dana bëri dugg ci biir ab diir bëkk néeg bu fekk ko fa na ko day sëriñ Cheikh ak sëñ Bassirou di ñu ngi toog ba tey ñoom mu daal di ubbiwaat bunt bi. nee man kat Bassirou damay bëgg a jaarale xanaa xamu leen di dimbale benn taalibu sëriñ Tuubaa moomu gënal oto bi. dimbale xettali benn taalibi Sëriñ Tuubaa moo ma gënal oto bi boo seetee ba ci ñaan yi mi ñaan te kadar te kadarati wa daaxat alal wara maanaam ñaan yi ñaan rek mm-hmm. jullit yëpp lay ñaanalaale macha allah daana wax ne yàlla ci ñaan yi may ñaanal jullit wax ne boole nit ñëpp sol ci mel ni mbedd nay mbeddam teraanga foofu la soloon taalib yëpp moo tax kenn mën ko woon a muñ macha allah kon sëñ Ablaye ñu tax jërëjëf jërëjëf xam naa dañuy jëkkante ak waxtu wi ndax ñu ngi ñuy signalé kon sëñ Cheikh xam naa ñuy tëje rek yow itam ci euh, dirub benn ñaari simili rek euh, wax nañ ko sëñ euh, Basiru léegi tomb bi nga xam ne ni moom lañ doon traité lan la ci waa jamono mën a yóbbaloo rawatina njiit ñi nga xam ne ni dañuy yar seenu njaboot. waaw jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf Cheikh Amadou Basir waa Cheikh Amadou Moustapha de dafa mel ni ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa nekkoon njiit jàpp naa ne képp ku njiital jamono war nga caa war bind ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam mën ngaa wax ne mooy kii jiite. waaye mooy atte waaye mboolem li ñuy soxla ci euh, euh, mboolem di soxla moo koy def takk sa ak yéene ci aju ma jàpp nag lépp njiit fi ne loom si da ngaa doon njiitul réew wala njiit loo mën a doon yow it sa taxawaay mooy nii Cheikh Moustapha doon jiitee ak nag boo leen jiitee da ngay fexe ba la nga yor nga fes ko yéene bokk ak ñoom waaye ñoom la ñoom la ñu yor nga bàyyee leen ko waaye ci sa der bii ni Cheikh Moustapha def nga xam ne dafa waxoon der bi moom daanaka da koo saraxe loolu njiitit nag taxawaay boobu la war la war a am ci ci ñi may jiite lépp loo xam ne bii ñi ngay jiite ñoo la ko gën a bëgg nga bàyyee leen ko nga bàyyee leen ko kon damay wax ni képp kuy njiit njiit nag sa kër lay tàmbalee nga doon sa njiitul kër sa njiitul gox ba ci njiitam réew war ngaa jël ay bind Cheikh Modou Moustapha nam doon jiitee ndax gëm jàpp naa ne képp ku ku taxaw ci taxawaay walla sax nga xaw koo jege ci nam doon jiitee ñi nga ñi nga jiital ñëpp lay gërëm ñëpp lay sant ca dañuy am jàmm kon jàpp naa ni la ci kuy njiit ci bàyyeek nit ñi li ñu yor ca moom li mu yor mu bokkook ñoom waaye bàyyi leen ab deram lu ko neex lu neex waaye na ko wax ca moom du wax kenn lu ñaaw kon loolu dañ ko war a dañ ko maanaam ñun jamono mhm. lu ñu war a jënd jëndeel Cheikh Modou Moustapha ndax sa Ibrahima jamono laaj na ko lool xam naa kaddu yi ngay tëjaale mhm. waa xanaa di santaat bu baax rek e, di gërëm ci jataay bi e, ci ni nga xam ne noonu ñu ko taxawoo waaye di wax ni daal Cheikh Modou Moustapha ab royukaay la ci anam yëpp boo xam ne bi jamono soxla na ko kon jàpp nañi ni modèle la ci anam boo ko mën a jël ngir ñu delluwaat ci moom ngir suñ suñ dund gi ñu nekk mën a doon dund gu na tax waaye ñu mën a teg suñ tànk ci jaamu yàlla teg ko ci ndigalu sëñ bi ba maanaam boo liggéey ñu mën a mucc ca ak njabootit ñu mën koo jof te bu ñu koy jofal la la ci suñu borom bëgg ñu mën ko defaale kon noo ngi sant ñëpp di gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam kon sëñ Basiru yow it dañ lay jox rek nga daal di yëkkati sa kàddu yi ngay tàggoo mm-hmm. waaw jërëjëf kàddu yi day xam naa mooy ni ko sëñ Cheikh Fall waxee rek njiit ak kilifa bala nga koo doon nit ki mënu koo doon te ragal yàlla amut ci moom nit ki mënu koo doon te njub amut ci moom nit ki mënu koo doon te yërmande ju bari amut ci moom waaye nit ki mënu ko doon te yar amut ci moom nit ki mënu koo doon am xel nekkut ci moom waaye nit ki mënu koo doon te war ma nekkut ci moom mu mel ni yooyu yëpp nag Cheikh Mouhamadul Moustapha boole woon na ko ci jikkoom ji te makaarimul axlaax ci la nit mën a euh, téye àddina ndax yonent bi alayhi salaatu salaam daf ne innama bu'istu li utammima makaarimal la li tax yàlla yónni ma mooy ma mottali tedd ngay jikko yi loolu nag mooy jéggal ku lay jox ku lay xañ jokk ku lay dog loolu lépp nag mi ngi woon ci Cheikh Mahamadou Moustapha moo tax bi maam Thierno nelawee sëñ Cheikh Awa Balla bi mu ñëwee bi mu ko bi mu diisoog moom ci wàllu kilifteef daf na ko boo demee say doomi baay ak say rak lu ñu yor na leen ko bàyyee loo yor na ko bokk ak ñoom na nga nangu ñuy añ ci sa eh, na nga ah, ñuy añ ci sa doole di reer ci sa der mm-hmm. sa doole di reer ci sa der loolu boo ko defee yilif ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Bassirou Seck jërëjëf Serigne Cheikh Fall Taïf ci tomb bu am solo bi nga xam ne nii moom lañ doon waxtaane tey mu jëm ci Cheikh Mouhamadul mustafa ak taxawaay bu am solo bi mu amoon ci njaboot gi ak mbooleem jullit yi gannaaw euh, nekk ak Serigne Touba Cheikhul Khadim fii ci Daara Dunia waaye ñu dégg ci ay tomb yu am solo yoo xam ne ni itam wala yeneen tomb yoo xam ne itam yaatu na ci lool ci euh, fi nga xam ne la jamono toll kon jot na sëkk nag ñu daal di delluwaat ci taxawaay bu am solo boobu nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Moustapha amoon na ko rawatina nag ci ñi nga xam ne nii ñoom la doon yar. kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jataay bi nag doon ñaareelu jataay bi ni ñu ko waxee ci ak njaal benn ngir waajal bisub eh, ñaar fukki fan ci weeru muharam di bis bi nga xam ne nii ci la cheikhul xadim tànnoon ñëw dëkkaale ak boromam ci taxaway cheikh Modou Moustapha mu def ca lépp ba tax saa su bis bi dikkatee nag ñi nga xam ne dañooy aju ci diwaanu Muddina lëkkale mboolee munti këri Serigne tubaay yi commission culturelle bi di ko waajale ci anam bi kon nag li benn jataay la di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo jàpp ci xarala gi moo xam muy caméraman yi régisseurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne dañ koy yaatalaat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii ñu ngi koy def ba fexe fépp fu mbokkum taalibe nekk rek nga mën koo seetaan ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dox daje beneen ab jataay ci waajtaayu muharam 1444 2022 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu